dugg naa biir Fatick te xam nga Fatick boo fi duggee ah wax dëgg yàlla faaw sax xel dem si maye ndeb bu dee làmb moo la yëkkati maye ndeb nag ñu yaay ñu koy nu di ko ziar jaar nañ këram nuyu ko ziar ko macha allah di ko ñaanal yàlla yaramam dafa xaw a sutante mais yàlla na ko yàlla wéral delloo ko ci sagoom mais maa ngi waxaat rek di lancer appel waa làmb tamit ñi nga ñi nga xam ne daan na leen bégal ñu ngi fi te yàgg naa bégal doomu aadama si làmb yàgg maar kon defe a ah, yaramam xaw na sutante bon àddina nag moom looloo ànd wala foo ko wax lu tëgg tas waaye du tere tamit ñi ko seqaloon ñu ngi fi kon nañ ko xaw a gestu gën ko jàppale si parce que defe naa loolu laaj na ko kii ma jàkkaaroon nag doomam la muy Agnès moom defe naa fi mu nekk nii ci côté way bi moom mooy jël relève bi ah masoon naa ko fek fii Ndiaye Ndiaye Fatick maa ngi lay nuyu Agnès Ndiogoy. maa ngi lay delloo ziar Babacar. <laughs> di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi parce que nit xam na li ko war te defu ko mais bu leen yàlla mayee xel boo leen mun a doxee di fekk nit ñi di leen nemmeeku ci yu mel nii na nekk loo xam ne rafet na trop macha allah. tamit olof ko wax ah, ko bokk si gétt gi naan ci meew mi te defe naa ne sa yaay defe naa bari na ñu mu bégal si làmb ci way te yow mi doomam tamit macha allah nga aw ci yoon wow te ñun comme ni ñu wax rek xeebuñu kenn ñun pour ñun micro bi ñëpp ko bokk rawatina nag axlu làmb mhm. loolu moo tax ñu def loolu mooy dëgg sax ça se voit même parce que depuis ci suba ngeen ma woote ay tournée ngeen doon def te ci ay ay kilifa ngeen doon fekk ñoo xam ne dañoo bokk ci làmb ji ba ñëw ci man xale bu ndaw waaw kon nag amuñu dara daal di leen fay rek sant ak ngërëm rek. Mhm. Mhm. maire bi jaar naa si moom mm, dama ko fekk mu xaw a wéradi mais nag mu ngi tane macha allah euh, moom wéradem bi depuis kañ la. waaw sama yaay defe naa am na un mois yoo xam ne man mii dama bàyyi woon sama kër sa dem di fanaan ci këram ndax mu feebaroon daal mais comme yàlla def na jàmm rek macha allah ñu sante ko yàlla waa mhm. mais daal ci côté amoo difficulté amu kon ci ci financièrement pour faj beeg yooyu daal wala. non non amu ci benn problème vraiment ay doomam taxawu nañ ko. di mhm. ci war yëpp defoon nañ ko. Mhm. waa doomam yëpp a woon ñun ñëpp man ma génn sama kër dem këram def naa fa un mois mm-hmm. tëj sama kër mm-hmm. di fanaan ci moom mm-hmm. looloo tax nag nit di nit di jooy njaboot daal waaw. yàlla na ko yàlla gën a wéral mais Agnès actuellement lamb ji fi mu nekk nii defe naa dafa pause ndax weeru koor gi euh, defe naa bu boobu ba tey Agnès jëlul micro bi waaye fi mu nekk nii ndax pause bi. waaw pause bi mais avant koor gi une semaine wéy naa fii Njaay Njaay mooy drapeau Cheikh Kanté bi ñu fi doon tëgg 8 9 10 bi moom lañ woy fii waaw. boobu yow yaa ko woy. maa ko woy waaw. di profité nuyu Kéba Kanté suñu waay di nuyu papaam Cheikh Kanté mais Agnès euh, Agnès tey sa yaay ku ne xam naa wala boog suñu yaay sax laay wax ndax suñu yaay la ñun ñëpp ni mu marqué empreinte am si làmb ci côté way est ce que doomam mën na yóbbu niveau bi foofu wala fu ko romb. mën nañ faa dem ba fa ba fu ko romb. Hmm. c'est que ñoom dañoo amoon chance. Euh, seen époque lamb nekkoon na loo xam ne bëriwul bëriwul woon wéykat wéykat du moins mais à notre temps presque dëkk bu nekk am woykat kon nag jaar-jaar bi dina nekk loo xam ne day difficile mais yàlla tax na daal ku nekk mi ngi lekk wërsëgam ci li nga war a jot. Mhm. maire bi suma la laajee yéen ñaar ku dàq way moom moo ma dàq way nag. c'est sûr que <laughs> euh, tamit daa tamit moo gën a yëngutu parce que maire bi macha allah moom ay wayam da ci daan boole animation. Ah, waaw fecc mi man mën naa fecc dama li ma la gis ngay woy yëpp benn place da ngay toog jàpp <laughs> loolu la nag mais dinaa commencé fecc. pourquoi doo yëngatu. non dara xëy na dama amul habitude am rek. mais doo ko jéem a habitué nag. waaw na nekk ba ba léegi. Mhm. wala da ngaa mënta fecc. mën naa fecc nag ak maa mën fecc. wala ñu dafa saful xorom. loolu la ñàkk xorom la. nu <laughs> bëgg a waaye bëggee ñàkk xorom. <laughs> dinaa fecc. Ah. Mhm, man mën naa fecc de ah. pourtant au début dama doon fecc. dama dem ba bàyyi fecc bi rek mais man daan naa fecc de waaw. Euh, nga nekk fii sa kër macha allah euh, bu ñu xoolee milieu bi milieu lamb comme ni nga ko waxee léegi dëkk bu ne am na woykat loolu defe naa jafe-jafe la pour pour pour fi mu nekk nii nga xuus jàll de defe naa. Mhm. loolu la xam nga tey dëkk bu nekk bu amee woykat dëkk yi xam ne ñoo doon jël maire bi daanaka presque plupart bi yëpp seen woykat a nga fa te nit du bàyyi am di jéggaani ah loolu la loolu rek mooy indi kii bi problème mais n'empêche Babacar ñun ñu ngi wéy de chaque mm. weekend bu lamb be bee dañuy dem wéy. ah bu jot yaa ngi wéy. weekend bu nekk damay wéy mm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. tey yéen ñi fi nekk di woy parce que xam nañu Mbayang Loum ñëpp xam nañ ko mm-hmm. xadi euh, kële nu mu tuddati euh, Ndeye Fatou Adama Jali ak ñeneen ñi bëri nañu euh, seen biir noonu nu ngeen di dunde dund bu rafet la ñuy dund man damay toog jël sama téléphone woo woo Mbayang Loum hmm. ñu waxtaan hmm. en plus am nañu benn groupe boo xam ne ñun woykat yi ñoo ko bokk di ci diisoo hmm. waaw di wax même le quinze mai bi dañ ciy tëgg làmb ñun woykat yi di ko def sargal yaa may waaw te woykat yi ñoo ko initié ak suñuy président ak suñu suñuy trésorier ci groupe fans club bi ñoo ko ini ñoo initié groupe boobu tey le quinze ñun woykat yëpp le quinze bu neexee yàlla dinañ dinañ wàcc fii ci kër gi Euh, yendu fi euh, toog heure làmb bu jotee ñun ñëpp ñu dem dugg làmb ja mu doon lu rafet initiative bu rafet ñu yéenante jaamu ñun ñëpp àdduna daal dafa amul solo daal incha allah waaw. loolu kañ ngeen koy def. le 15 mai incha allah. korité ba la ba ci suba sax. Mhm. loolu mise bi ñaata lay toll. cinq cent mille fu ngeen koy defee. fii Fatick Ndiaye Ndiaye arène ngoo Sidi Ndiour Matar ba moo ko ok waaw. maanaam kon loolu déggoo ngeen ci yéen ak yéen yéen ak ah, ah, Mbayang ak. Euh, ñëpp bi waaw ñëpp. groupe yi groupe bi bi mu ngi tudd groupe des présidents membres et leaders noonu la groupe bi tudd. ñoon nag ñoo def ñoo def ay waxtaan ñun ak suñuy président suñuy secrétaire ba ba juboo ne dañuy tëgal may sargal le 15 incha allah waaw. solo groupe bi kan moo ko jiite. groupe bi ki ko jiite mi ngi tudd ka Kade dëkk mbasis Lo waaw. moom woykat la. non góor la waaw. woyul de xëy na yéeneem rek a fa yegg mu daje boole woykat yi daal parce que am na yoo xam ne nit moo ci mun a génnee nitu morom comme tey par exemple man dama daan toog at duma ma dégg Mbayang Loum dama daan toog ñaari at du ma dégg Mariama Jonwaar dama daan toog ay ñetti at xanaa ñu tase ci ay événement yu mag doog a gisee mais tey yàlla tax na chaque jour ma taalee sama portable ñun woykat yëpp dañuy déggante ku ci am tiis ñi ñi bokk kook yow ku ci am lu bànneex nit ñi bokk kook yow xam nga loolu initiative boobu nekk na xam ne dina boole nit ñi juboo bi gën a euh, gën a ratax suñu biir mu nekk lu rafet ñu toog di ci waxtaan def nañ presque un an deux ans yoo xam ne ba lii doog a xew lii mooy première édition ci woykat yoo xam ne moom lañ bëgg a organiser nii waaw incha allah le 15 bi. macha allah loolu am na solo mais côté dakaar bi dañu gisuñu gisuñu fa Agnès bu baax ah lan moo tax dakaar Dakar mënoo fa percer ba tey. non dara lu jot rek day yomb Babacar gis nga àdduna jarul yàkkamte jarul xiiroo jarul ŋaayoo sama wërsëg heure bu nekkee Dakar dinaa fa dugg incha allah man foofu laa ko teg incha allah. Mhm. bër gi dem tamit gis nañ benn geste bu rafet ñëpp di ko rafetlu maanaam Mbayang Loum déplacé wu dem seeti. Euh, Ndeye Fatou Adama Jali yóbbul ko sukuru koor affaire yu ñëpp fu nekk ci ñëpp di ci waxtaan loolu noo ko gisee. kontaan si rek parce que Ndeye Fatou à part sama yaay mi di dundu hmm. mun nañu wax ne leader woykat yëpp Ndeye faatu moo ciy mag tey Ndeye Fatou mun nañoo jur ñun ñii toog dañ ko war a jox cër ñun ñëpp mbay mbayang li mu def geste bu rafet la geste bu noble la def ndax ndey kii euh, mbayang ah mbayang tey buñ ne day day day day day day day tongoog ndey faatu nekk la na loo xam ne ñaaw na parce que ndey faatu yaayam la kon yàlla bu ko mayee xel bii muy dox ak tànkam def ko surprise de ndax daf ko def surprise tàgguwu ko sax ne maa ngi ñëw daf ko def surprise dem ba Kaolack fëgg muy moom mu nekk lu nice parce que tey nit boo boo naree def dara tey mu nekk loo xam ne sa xol nga ko tibbee bu ci wax bu ci woo ma Demba bu ci woo ma Samba da ngay demal sa sa sa bopp ak sa sang froid dem ngeen toog waxtaan loolu lii li mu def nii lu nice la ñëpp a ci kontaan man mi woo naa ko félicité ko ne ko li nga def dafa nice àdduna amul benn solo lii dañ ko lii dañuy dem ba ko fi rek te nit ku ne ci li ngay liggéey ñaan nga yàlla nga bàyyi fi loo xam ne euh, kii bu trace bu rafet lay doon lii day doon loo xam ne acte lay doon ba ba ala ba ba fa yem moo tax man man mii moo maa yëkkati sama téléphone woo ko personnellement waaw ne ko li nga def dafa rafet Mm-hmm. ci biir waykat yi ku ciy sa woykat yow. man ñëppay sama waykat waykat yëppay samay xarit mosuma cee xuloo kenn mosuma cee xool nit ku ñe. ku la ciy daaneel laay wax bëgg a wax ci way ku la ciy daaneel. ñoom ñëpp. <laughs> <laughs> Agnès tontu ma ku la koo xam ci ñoom day way nga nga nga sentir sa bopp. ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ñëpp séeréer la ñuy laag eh. lu lu mbayang way mën naa ko woy eh. lu ndey faatu way mën naa koo way eh. Mariama Jon war noonu kon lan moo ciy conséquence ñun ñëpp benn lañ. benn lañ waaw. Mhm. mu mel ni kon daal la paix mu ngi ci seen diggante yàlla na sax lamba ji tey noo ko gisee. làmb ji ah làmb ji de euh, lu ma si mën a wax tey mi ngi avancé mais buñ seetee côté cosaan dafa daanu. dafa daanu mais actuellement euh, avec la nouvelle génération mm. mi ngi ci kanam. waaye waaye. Mhm. lan moo daaneel cosaan cosaan bi li ko daaneel yi bëri dem na ba ci ñun woykat yi woyatuñu cosaan hmm. dem na ba ci tëgg tëggkat yi léegi musique la ñuy tëgg hmm. kon nag dem ak ah, encore <coughs> pardon demaat na ba ci mbër yi hmm. mbër léegi day day fecc comme jigéen te mbër bu yàgg da doon da doon da xaw ma nan laa ko mën a waxee ci olof démarche am rek day wër day wane ne lii góor la mais mbër yi léegi dañuy fecc comme ay jigéen mbër bu mbër bu yàgg mbëru euh, mbëru booba boo ngemb woon mhm. ba dugg ci làng mhm. booy dox rek dañuy xam ne kii mbër la mhm. mais dafa am différence daal. yow mbër comme yooy yooyu ñoo ci fàttaliku mbër yooyu nga gisoon xamu ni ñi boo leen gisee ci xam ne ñi ay góor pire la ñu. dem na si ndem si yàlla faa bi féeliir dox da xam ne kii mbër la dem na ci ñoom euh, Euh, ci ñi ma fekke laay wax de yoo xam ne seetaan naa leen Tambooy waaw dem na ci ñoom ali Ndour bu jooral mm-hmm. Ngolomaan bu jooral mm-hmm. ñoom euh, kii ndem si yàlla kii Ngéeñan Malick Ngéeñan ñoom boobu maa ngi nekk xale ñoom ñu ñëw Fatick di bëre fii mm-hmm. ak ñoom Bure bu dëkkoon Diouroup waaw ñooñu am nekkoon nañu ay mbër yoo xam ne buñ dëgg buñ duggoon ci làmb daal da ngay xam ne làmb bi euh, am na manifestation am na cosaan boo xam ne nit ñaa ngi koy ciy jàngat muy muy mu nekk ay mbër yoo xam ne dinañ génne eh, làmb dinañ génne bëree daal. waaw. waaw. tëggkat yi tamit jamono jooju yan tëggkat ñoo fi ne di tëgg cosaan. waa jamono boobu man li ma tombel de Babou Ngom laa fi tombel waaw ñuy tëgg làmb Babou Ngom laa fi tombel de ndax Omar Thiam man li ma taseeg moom làmb bëriwul sax. mais Babou cosaan lay tëgg. waa auparavant cosaan la doon tëgg c'est que nag euh, mooy nouvelle génération bi ñu wax rek gala ngi di soppeeku di dem. di di soppe rythme di soppe ñu jël rythme musique mm-hmm. léegi booy tëgg làmb teg palaat teg xiin te loolu yëpp amuloon ci làmb. yow loolu da jàpp ne yow loolu bokkul ci tëgg bi. waaw man bokku ci bi ñuy nekk xale moom loolu bokkuloon ci làmb. Mm-hmm. ñu mag euh, làmb yu njëkk yi ay juróomi ndënd lañ doon teg. ñii di ñii di tulli ñii di xaw ma lan ñii di def lii. Mm-hmm. mais léegi da ngay gis ku teg palaat te teg xiin yëpp bokk ci animation làmb. waaw rythme bi day dem ba jàpp musique au lieu mu jàpp làmb cosaan musique lay jàpp léegi. Mhm. waykat yi tamit la moo leen poussé ci ñuy way léegi wayatuñ cosaan ñoom dañoo xamatul cosaan bi wala lu xew. waykat bi waa mën na nekk tey tey tey su ma jëloon sama woy yaay woyu njëkk yaay di ko bi mu doon woy di ko woy tey tëggkat du ma tëggal wala dina ma wëcceexu loxo. du la mën a dégg. daf may naan xamoo dara affaire bi dafa dafa compliqué de. tey tey su ma jëloon micro. di woy woy cosaan di ko woy ndànk di ko yéexal mais mm. tëggkat mooy toll fële may may woy muy tëgg ma di ma wiccax loxo naan ma xamoo dara te pour cent koy pourtant loolu mooy làmb làmb bu njëkk dañ ko doon da yéex nit ki xam li ngay wax ñu xam li ñuy tëgg mbër yi nga xam li mbër yi di bëre mais dem nañ ba rythme boobu mënatul am ndax folklore. maanaam woy bi day gaaw tëgg bi gaaw. mooy folklore bi rek folklore lañ lañ ko ci lañ ci ban rythme lañ ko xamoon folklore déedéet du musique de rythme séeréer la woon mi mel ni yaa ngi njuub ñu lay tëgal ngay fecc loolu mooy folklore fecc bu gaaw boobu léegi nag yow man su ma buggee jël samay woyu cosaan tey dugal ko ci ñoo xam ne dañuy fay dañuy tëgg folklore du ma dem loolu mooy indi problème bi. am na solo mu mel ni kon mais bu nekkoon tëgg cosaan wéy cosaan rek fii fii Sénégal laa la wax de gisuma ku ci teg loxo wéy cosaan tëgg cosaan ñu dellu ñu dellu démb fii gisuma ku fi teg loxo. ku teg loxo kon bu keroog. xanaa yaa maye yoonu yaa maye waaw. loolu leer na lambi dóor da koy seetaan. waaw li may li may wéy lamb dóor sa bëri na trop côté jaxaw siin bi waaw. bëri dóor yi kan moo la ci gën a neex. mbëri dóor yi nag dañoo bëri de macha allah yàlla. non comme comme mbër yi ne ci yi ñu ci gën a xam ñu ñu tuddee ay VIP ay Modou ay Gris Bordeaux ay Balla ah, ay Eumeu Sène. niveau de Dakar ngay wax au niveau de Dakar moom man aw ma mbër vraiment hmm. non non. ñoo neex nañ ma sax mais xam nga bu ñu waxantee dëgg rek woy woykat tëggkat warta supporter mbër ndax tey man mun naa supporter mbër. fekk mbër boobu ma supporté mi ngi bëreeg beneen mbër xaw ma nan laa la ko mën a expliquer daal woykat si boppa moo munta am mo moo warut am supporter daa war a nekk ci digg bi bëgg ñëpp bégal ñëpp loolu mooy rôlam waaw lool mooy rôlu woykat mais roykat woykat si boppam moo moo warut a am farfarloo loo may wayal ñu tàggoo limon bi ci garab gi la wodde yaa ko gën a xam silman jimboore safando kornde ɓaan ngel nune dambaye silman jimboore safando kornde ɓaan ngel nune dambaye jankam bowage korfa manona silmangatiye jankam bowage korfa manona silmangatiye yurwaxule ne jabelunde ne njom jareñoye yurwaxule ne jabelunde ne njom jareñoye juudwa mbadit banget kano maola silmangatie Fudwa mbadid banget kano maola asil mangatie. E andese ne jachare kanywan gil na sumbele. E andese ne jachare kanywan gil na sumbele. Sin gimka baba karageno injalwa ndatele nuna jofa pame. ekivoksun kimka babakarageno ajalwa ndateleenu najofa pame ekivoksun kimka babakarageno ajalwa ndateleenu najofa pame eyagmarin gimka ekivoksa njega ndamle eyagmarin gimka ekivoksa njanga ndamle eyagmarin gimka ekivoksa njanga ndamle kon leer na dégg ngeen ko Agnès li mu wax macha allah yàlla na jàmm yàgg waykat yi benn la ñoom ñëpp waaye li wax tamit nañu gën a gëstuwaat ci cosaan bi ci tëgg bi ci way bi ci fecc bi mbër yi tamit message bi mu leen lancé dégg ngeen ko ni bëre simple na ne na mbër bu jëkkoon boo ko gisaan bu duggee si géew di nga xam ne kii mbër dëgg la waaye léegi dañ cee dugal lu ci bokkul kon xool leen li ci bokkul ngeen génne ko moom mi ko wax waykat la te itam yàgg naa toog suuf mbër yi di bëre muy seetlu mbër yi ginaar añee sa ngongu toog limo gaa ngi nii yàgg may limo bi <laughs> añees may na ma limo ah macha allah du mën a ñàkk yàgg maar ak Equivox TV lu original rek laa leen di jox lu leer laa leen wax du ay fala fala c'est l'original